dénkaay ri soirée et fils mo len di may seen xutba aljuma وجعل لفيضان رحماته أوقاتا وأزمانا وجب حمده على ما أسدى وتعين شكره على ما اهدى فإياه نحمد وبوحدانيته نشهد نسأله أن يواصل الصلاة والسلام ويوالي المبرة والإكرام على سيدنا محمد الذي فتح الله به لأمته من شعاده ما أراد وشمل بنعمة شريعته الغراء الحاضر منهم والباد أما بعد فيا أيها الناس إن الله اختار أياما صرفها وأوقات خير بينها وعرفها جعلها متجرا رابحا ومغنما لمن تاب وآمن وعمل صالحا دلالة لعباده على قصد السياق إليه وكفالة بمجيد الصواب لمن رغب منه فيما لديه فمن شكر كتب من الآمنين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أباه قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أباه فارغبوا رحمكم الله في دخول الجنة بتاعة الله ورسوله واعملوا بأعمال صالحة توجب لكم رضوانه وحسن قبوله واعملوا لآخرتكم ما دام يمكنكم العمل ولا يزغلنكم الحرص على الدنيا وطول الأمل فإن سفن الأيام بأعماركم طائرة وإن سرعة تعاقب الأعوام والسهول في أعمالكم سائرة وقد علمتم يا عباد الله منزلة سهركم هذا بين الشهور الحمد لله الذي بتاعته تعلو المنازل والمراتب وبالاستعانة به والاعتماء عليه تتيسر الكلف الشرعية وجميع المطالب وأن واصل الصلاة والسلام على سيدنا محمد سائم الخائم وعلى آله وأصحابه ما أقيمت للدين قواعد وخوائم أما بعد فيا عباد الله اجتهدوا بالعمل الصالح قولا كان أو فعلا واعمروا الأوقات بالعبادة فردا ونفلا وأخلصوا العمل فإنه لا يقبل منه إلا ما أريد به وجه الله العلي الأعلى وطهروا سرائركم من قبل أي من قبل أن يأتي يوم تختبر فيه الشرائر وتبلى وعملوا أن الصوم من أفضل القربات وأعظمها عند المولى قال عليه الصلاة والسلام الأعمال عند الله تعالى سبع عملا وعمل بعشر أمثاله وعمل بسبعمائة وعمل لا يعمل صواب عمله إلا الله تعالى فأما الموجبان فمن لقي الله يعبده خالصا لا يشرك به شيئا وجبت له الجنه ومن لقي الله يشرك به شيئا وجبت له النار ومن عمل صديقا يعمل حسنة ومن عمل حسنة جسيا عصرا ومن أنفق ماله في سبيل الله ضعف نفقته الدرهم بسبعمائة والصيام لله عز وجل لا يعلم صواب عمله إلا الله تعالى noo سنتي الله yàlla moom mo matal ci adina bi yépp ak tabam ak ku rafetalam ba ak cantam di war ci bepp julit ak fu mu nek waye waaye mu def mom yalla mom ay bebb ci ay yermandem ci ay yenn waxtu ay yenn bis ak yenn wer mu bokku ci weer yu melni ki yi ñu nek ak bis yu tedd yi ñu genn di bis yu ñu mëna njëkkante lool am ci lu bari ci lu baax am ci lu bari ci ngeeramul yalla ak yi njëgal yalla nañu ko yalla defal mu war ci ñun bu baax nu sant ko ci gogule xewal comme nit ñu santé won ñu ko ko ci bis yu tedd yi ñu genn waaye ak cantam doon luy ràññeeku ci kenn ku ne ci kem lam la hadiyal moom borom bi kon ci moom la ñuy dellu di ko santaat di seede ak kennam di seede ak nguuram di seede ne ñun ay jaamam képp lañu yoo xam ne yu fas yéene doon ay jaamam lañu yoo xam ne dañuy fas yéene wuy ji ay ndigalam ba faw nuy ay julli ak i sëlmal yu bari ci sunu sang Muhammad yal na yàlla julli te sëlmal lu bari ci moom ak i ñoom ñoom ak i saxaabaam ñoom ñi nga xam ne ci ñoom la yàlla ubbee bunt bi yërmande ci mboolem jullit yépp moom yàlla moo moomu nag mooy ki nga xam ne moo def xéewalu sharia al doon xéewal gu daj ab badawi yu akub xadar yi foofu nag ab badawi yu akub xadar yu bu dee ci ñun xëy na soo ko firee la muy tekki mën naa nuru ya dellu ci yow yow mi ko wax waaye kon dañ nan kaw kaw kaw bi ak tax tax bi non la ko waxe waaye nag bu boobaa kaw kaw bi ak tax tax bi yow mi deg, jàppal ni ñëpp la jublo wax rek ci gàttal bul jël lenn moomal ko ki nga tudde kaw kaw bi wala nga jël la ca des moomale ko ki nga tudde tax tax bi kon kay waxe noonu day jubloo boole ñëpp donte ci ay jamono arab yi ñoom daanañ ràññatle ab xadar yi akub badaw yi waaye daal yërmande moom yàlla moomu di xéewaluk shariaam daj fep ci kep ko xamne ne ku nangu nga yalla nañ yalla xir ci ñi koy nangu faaw ginaaw lolu mbokk yi yalla borom bobu mom mo tan ay bis teddal len mo tan ay waxtu teddal len def len ñi ay waxtu ak bis yo xamne ne été la ci bepp kuy wut mangi teef wala tuyaaba wala bénéfice kep ku tup ci yoyu le bis ak yoyu le weer ak yoyu le waxtu borom bi jegal la sa mboolem bakaar yàlla na nu jegal bu baax waaye képp ku ca jëf jëf ju baax mu fay la ful ko ci kem nu mu ko neexee moom borom bi yàlla na nu ko defal bu baax loolu lépp borom bi def ko muy ab tegtal ci jaamam ñi ngir ñu jubloo ngir ñu sawar ci jubloo wuti lu baax ci bu waxtu yooyu dëgmale ak sax bu rombee kon wut lu baax amul waxtu donte dañ naan am na waxtu yu mu gën a woome yow mi ci marché bi di wuti dara ah bisu magal moom woom na lool waaye bu jàllee du la te xëy kon lu ba wax noonu nii la mel waxtu yépp lees koy wuti waxtu yépp lees koy xemeem tey daw jëm ca yàlla na nu ko yàlla yombalal yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na sama xeet ñépp dañuy dugg aljanna ko yow yàlla yombalal ki ne ko ma topp rek man waxee mbokk yi nañ yeewu bu baax xam ne topp bu ñu ko waxee mooy lan nun ñëpp ñu ngi am ay sëriñ di toppee lan mooy topp mooy ki may topp fu mu teg tànkam bu teg gee ma teg fa xam nañ bu baax ne soo jaaroon ci yoon ta xamoo fa boo àndee ku lay gunge doo nangu mu rawee la lu tol ne doo xamati yoon wax kon nag sa sëriñ bi nga yaakaar bu la rawee lu tol ne doo xamati yoon wa gindee kootoo bal nag ñun ñu bari ci ñun sëriñ bi nga daan moom nga wuy ji moom nga yaakaar mun naa am sax magal bu magal xay na la lay gis soo jàmbaaree ba jàmbaar kon nañ xam ne topp mooy ki ngay topp fu mu teggee tànkam nga teg ko fa mooy tax doo réer doo sànku yàlla nañu ko yàlla defal kon yonte bi alei salatu wasalaam nee na ku ko topp dem aljanna ku ko moy nag mooy ki nga xam ne moom moo duggal boppam aljanna moo duggal boppam bokk safaanub aljanna billah nañ xamee bu baax mbokk yi ci topp suñ borom boobu ñu xam bu baax ne topp suñ borom boobu yëg-yëg la boo xam ne waxtu wuñ ko yeexee ci suñ bopp yee yëg yëg boobu ci suñu yëg yëgukaay yépp danañ mujj neex ci ñun ba dootuñ bëgg leneen dana mujj mooy dàq ci ñun sax liñ naan am na ci salafu saalix ñoo xam ne dañ ne su doon topp yàlla day dugale sawara sax moo leen gënal ndax neex ci ñoom danoo dem ba topp yàlla egg ci ñoom neexaay boo xam ne dañ ne buñ ne woon mooy liy dugale wara sax ñoom d'accord nanu ndax dafa neex ci ñoom ba yëg-yëg bañ cay am mënatuñ ko amee ci leneen lu dul topp noonu la mel topp yàlla ki nga xam ne daf koo def muy mbiram te def ko muy itéem dana mujj di ca yëg ba neex ak yëg-yëg ak neex it woo xam ne leneen dootul mën a neex ci moom lu dul topp yàlla yàlla ko yàlla defal nañu farlu bu baax ittey àddina yi buñ ca xër a xër ba mu suñ digg ak yàlla gàll fi noonu nan wattandiku ak xéer bu baax ci àddina nañ xam bu baax ne gaalug dund gi kenn ci ñun ku ne bu jant fenkee sa gaalug dund tëmb na ci géejam fas yéene wéy ma ngay dund nag ci kam ci sa yitte ñun ñëpp suñ gaali dund gi bu boobaa na doon li yàlla bëgg ndax ki taxawal warukaayam boo ko tuddee gaal boo ko tuddee ki taxawal warukaayam war ca ci li muy dox la warukaayam woowee di dox kon kenn ci ñun ku ne sa warukaayu dund gi koste na ci sa kanam yaa ca yéeg boo ca yéegee yaa koy mat ku mesure ku ne rek yaay matal sa bopp sa gaalu dund googu foo ko jëmee fi nga xam ne ëllëg ngay teeri boko ko qibla bo xamne ne bu tang jeur la lu tang nga fay fekk soko ko qibla bo xamne ne bu seddu guy la lu sedd nga fay fekk ku ne nak ma nga dëgmal touba la jëm jëm qibla bu bokul ak ba touba nek <laughs> da nga daw lu bare bare sak ag mom luy jom lay don no ngi delu santat borom bobu taala mom mi nga xamne ci top ko ci lay yëkkatee martabay nit ka kon ñu xamne ne ñi yàlla mosa tànn ba adina soso batay yekati wulen ci aw askan wala aw sant bal dalina yekati ngir lan dan koo top bom mu gërëm leen kon yalla mi nga xamne ne ci top ko ci lay yëkëté martaba ya ci lay man manzila ya ñu eh, ngi koy sant di ñaan yalla nan ko top bam jox ñu martaba yu kawé lool nam ko joxe woon gaa yu baax yi ya jallon waye ci ko ci mom ak sukkandiku ci mom yalla ci lay yombalé saw yoon ci sharia ba nga man caa teg sa tank bu baax waye ci lay yombalé sa mboolem càkkuteef boy wut ci sa dundu no ngi jottali ay julli ak salmal yu bari ci muhammad alayhi salatu wassalam ak ay joñam ak sahabam fiek ñi ngi taxawal ay ponk ci l'islam fi ak janti fenk ak aso ginaaw loolu mbokk yi nañ farlu bu baax ci jëf lu baax moo xam ci jëf la wala ci wax nañ fas di dundal suni waxtu yépp waxtu wun yeewoo ca suñuy lal yëkkati suñuy bopp nan ko tàmbalee topp yàlla nan ko tàmbalee alhamdulillah nan ko tàmbalee eh, subhanallah nan ko tàmbalee alhamdulillah nan ko tàmbalee ay julli ak i sëlmal ak i julli ci mustafa alayhi salaam ak i alquran ak a def lu baax def lu baax ba keroog jant bay sowaat bakara ngay wéraat sa wet ngir dalu bal sax bi ngay wér sa wet yénel ne yalla day yama digal bu ma waree dallu ma dalu ma ngi sama wet ngir yaw bal sax bu boba sa tray bobu ak jaamu yalla lay doon ndax mom nga ca fas mom nga ca yéné waye bul jël sa dundu gi rek waccu ko muy dem sa bakkan yegg né noppalu la bëgg nga dem noppalu sa yegg yegg yegg né man dal tay dama sonu nga dem teddi nangam nangam du nonu lo cey def fas ca ne mang ko jublo def ngir jëmbi yalla bu noppalu yalla diglé na son noppalu Bude eh, waran nelaw nelaw yi yalla mayena ay waxtu ñu dem nelaw yi lu mu ca doon yéene ca ne maa ngi koy def ngir yàlla bu boobaa yàkki kabar di julle yam de ndax yàlla la ko digal def nga ko te fas nga ca ne da nga koy defal yàlla yàlla fay la bu boobaa yàlla nañu ko defal nañu selal suñu jëf bu baax te bàyyi xel bis bi nga xam ne bu yegsee borom bi dana wuññi mbalaan mi nga xam ne moom la muuroon fi ñun ñëpp kenn ci ñun ku ne la nga defoon lépp dana ne wéttu wéttaral yàlla jàkkaarloog moom bal sax lenn ci ñi seen morom jam dañu dañuy rok lañ defal am nak ñoon yalla dina ñew fa ba fa ñom leen ne leen ah nangam ku ko defoon nga ne man nangam nga ne man ba say baram jeex wala lu ko ëpp ba muy yu bare bare bari mune la bal naa la demal dugg aljanna su boba di nga wàcce say mbag lol di nga ram dank boy dugg àjjana do say mbag bu boba bal sax ñit ñi dund ci àddina yëkkati mbag kañ la war bu de war na buñ taxawé bar sax leg yowmal qiyam bañ pesse say jëf ne la ya wat ya man ñëpp yow kat xut bu samaan yi sax doo seen morom foofa la yëkkati mbagg jote bu boobaa tabal nii lay demee mooy ni ku ne am nga lu ne weng fi yow loo xam ne yàlla dina la deey nga xam xelli na yaa ko defoon te amoo ca sikki saka donte yow dong yaa ko xamoon yàlla suturaal la mur la mbalaanu sutura ne la demal yàlla nag digé na mustapha alayhi salaam wax na ne ku ba kum julitam yàlla sutra la keroog bis boobee sutura soosi nit ang koy amee ci kaw ba mu mboro bu julitam kon saa yooyu sutra sa borom julit ëllëg yowmal xiyam yalla mënoon na wunni sa malanum sutra la nga defoon mune wet sa mbokk yep gis ko waaye bu boobaa mën na ñew ba ci yow deey la ne la yaa ko defoon nga ne waaw mune ne la baal naa la yalla nañ ko yalla defal ñun ñep nañu fagandiku bu baax borom bi tabaraku taala yonte ay salatu sallam neena na dafa def juroom ñaari jëf jëf yi tolo wuñ ay darajaat juroom ñaari jëf yi benn bi ci mi ngi am daraja yi lu tol ne ni nga ko defé wala ñent yu njëkk yi comme ni nga ko defé dañ la koy fay waaye beneen bi mi ngi yor darajay juróom-ñaar fukki junni beneen bi mi ngi yor darajay fukk beneen bi mi ngi yor daraja ju kenn mënta misal mu wax ne ah booy wàññ da nga naan benn jëf bu njëkk bi bu dajeeg borom tabaraka wa taala yóbbaale ay jaamu yu mat sëkk te bokkaale wut yàlla dara yàlla tabbal ko aljanna kooku ak fayam yàlla yemalewu ko fenn dafa wax rek ne ma tabbal ko aljanna man yàlla bu boobaax waaye nag ku ñëw dajeeg man yàlla indaale ak bokkaale ma tabbal ko sawara man yàlla kooku it ak fayam amul lim amul àpp ma tabbal ko sawara rek mooy fayam bu boobaa. waaye koo xam ne nag jëf na ab ñaawteef man yàlla ma jël ñaawteefam boobu delloo ko ko muy ak payam ëllëg moo ko defoon moo ko moom laa koy delloo moom yàlla amu ko te amul fu ko denc. xam bu boobaa yow mi jëfoon jëf naa te tuuboo ko ba borom bi jéggalu na ko boo ñëwee dana jël sa jëf ju baax sa jëf ju bon jooju de naa billah delloo la ko ne la jëlal sa waaye ku nam moo na def lu baax gàllankoor dab la ba defoo ko yàlla fay la lu baax loole mel na ne def nga ko waaye ku jëf-jëf ju baax it nag yàlla fay la fukki jëf yu baax waaye nag ku dépensé alalam ci yoonu yàlla mel ne yow mu màggali dem def sa alal ci màggal yow mu yow mu jël sa alal jox ko ay faqiir yow mu jël sa alal euh, lele ca ay ay nit ñu naruntum ranke yooyee day la borom bi wax ne moom bu boobaa dinaa jël benn dërëm bu ne ful ko juróom-ñaar fukki junni dërëm fayela ko yow mi def jëf jojo kon jëfi infaq fi sabilillah da melne mom la yàlla gëna a fonk moom la yàlla gëna kawel waye wor nak mom yàlla wax na ne mom moko gadul bopam mokay fayel bopam kon ku wor sak pay nan lay tollu yàlla moy kiko xam جعلنا الله وإياكم من الفائزين برحمته المخلصين من عذابه ونقمته وغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين